ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di nu ñaanal dem mbégte ak kontaan ci ànd bee ànd ak ñun ci seen émission tegtal li wax ne seen bët suñ mbégte jëmm seen nopp suñ bànneexu làmmiñ seen taaxirlu waral suñ farlu tegtal du tàyyi mukk du bàyyi mukk ci seeti leen koo xam ne que njëriñ leen ci seen tu di ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal ñëw na ci koo xam ne que miin nañ ko lool ci tegtal ngeen miin ko lool ci tegtal mu doon koo xam ne que di dundal xam-xam ci biir tegtal ndax du ba pare kenn borom fil bi doon wax du wax ba pare kenn dof bi doon wax du wax ba pare ñu ne jaahil bi doon wax bu waxee ba pare ñi am xam-xam dinañ xam ne boroom xam-xam wax na ñi amul xam-xam dinañ ci jàng xam-xam kon li naan xewal dikk loraa ngi dakk kooku mooy ki nga xam na que wàllum xam-xam daf ci rampe dale ko Saalum Gambi sous région bi fu ne dugg na fa wut xam-xam fu ne dugg na fa jariña xam-xam mu doon koo xam ne que tamit tànneef la ci biir tegtal moo ngi ci biir Tektal TV ngeen koy wër ñun ñu gis ko indi leen ko mooy borom sant wu ñàng wi borom sant wu raar wi sant yi nga xam ne que maa ngi naan Sénégal est-ce que na fi kooku di kan Serigne Bara Segnane Serigne Bara Segnane yaa ngi ci Tektal TV. sa télé yaa ngi ci émission Tektal sa émission am yoo di ma ko joxoñ ñi comme ni mbër yi def signature contrat yi xaw ma xam naa moo tax may patiner mais xaaral ma def samay jet manit pour dem normal loolu nag àdduna wërngal këpp bi lay seetaan. waaw aousubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi àla aliyul asim allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatihi lima oxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alasim wa radiya allahu an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laa hawla wala quwata illa billahi àla aliyul asim yaa himmata sayqi hudri lana bi haatha almahdari wal taxtafi bi nasratin taati lana bi safar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli badaxtu bismillahi ruuhi bihi ihtadat ila kasfil asrari batini intawat ilahi laqad aqsamtu bi ismika daa'iyan bi aajin ma'ujin jallaha fatajaljalat bi samsamin tamtamin bi harfin mutalsamin bi mihraasin mihraasin bi naarun uxmidat afid lii min al anwaarin faydan mushriqan ali wa ahyal mawtal bi qalbi tay tawat ala wa kis ni ya bi haybatan wa jalalatan wa kuffa adal ahdaay ani bi xalamat gannaaw bu ñu santee yàlla bu julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, seex ñi ngi lay fay nuyoo di am kontaan trop euh, toog ak yéen mm-hmm. di waxtaan ak ci xam-xam di leen nuyu di nuyu képp koo xamante ni mu ngi liggéey ci seen sit bi di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu tim suñu mbokku Gambien yi rawatina ñi nga xamante ni dañu nekk ci biti ñi nekk Angleterre ñi jaamali ñu Soudan ñi nga xamante ni itam ñi ngi nekk fi nga xamante ni ci réew yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen di leen di leen ñaanal yàlla bu baax ndax nag ñun dañu nekk nit ñoo xamante ni dañu nekk diggante Gambie ak Sénégal mm. waaw moo tax dañu nuyu Gambien bu baax di nuyu Sénégalais yi bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ñuy seetaan di nuyu borom xam-xam yi nga xamante ni ñooy jaay seen site bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu lépp loo xamante ni mu ngi fay jaar di nuyu waa Tektal TV groupe bi yëpp ñu ngi leen di dalal mm. fas yéene waxtaan ak yéen comme niñ ko doon defee rek laayanteeg biir ci yéen ci xam-xam fàttaliku leen xam-xamu mag ñi xam-xamu cosaan yi ak uh, alxuraan ak li nga xamante ni mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu daal mooy suñu taxawaay di déglu questions yi incha allah. Uh, mm-hmm. jërëjëf uh, sëñ Bara Segnane wax mm-hmm. ji am na solo kontaan nañ ci siyaar bi yëpp. Mm-hmm. mais li ma doon joxoñ lan <coughs> waaw lii lii mbiru baatin la rek. mbiru waaw lii moom mbiru baatin la. <laughs> waaw kii moom mbiri baatin la ndax. kii mooy béjjunu mag ñi kii kii moom moo doon béjjunu mag ñi kii xaalis lañ koy liggéey dafay am lu ñuy sox ci biir mm-hmm. waaw ku ko yor mm-hmm. doo ñàkk te loo am maanaam day gën a sa mbir day gën a yokku daal day la waaw kii pour yokk la mm-hmm. waaw pour yokkute la daal waaw pour yokkute la waaw kaam bi moom mbiru baatin la moom it bon euh, suñu maam aadama bi muy wàccee ci kaw suuf mais laal gi ma ko laal mi ngi ma jëriñ dara da lay jëriñ bu baax ci suñu maam aadama bi muy wàccee ci kaw suuf ñett la ko yàlla jox est-ce que xamoon la ko jox bi mu wàccee àjjana ñett bi si njëkk mooy yet mhm. jaaru xeer bi mu demee mu ne ko xeer wi ak yet wi maanaam jaaru bi ak yet wi jël ko nga jëriñoo ko xeer wi nga yóbbul ma ko xajrul aswad ca kaaba ga mhm. doomu aadama yëpp képp ko yàlla def nga aji boo demee nga jëm ko raay bàkkaar bi nekk ci yow wala cet yi nekk ci yow dëñ loola tax xeer ba bañ ko fay def dafa weexoon tàll léegi léegi dafa ñuul dafa ñuul kukk loolu mooy sababu yet wi mooy sababu jaar wi yii yëpp ay baatin la yoo xamante ni yàlla moo ko jox suñu maam aadama ñu di ko doonante ba léegi mhm. kon du yetu <laughs> jërëjëf mbokk yi seetaan euh, Tektal TV ñuy seetaan seen émission Tektal ñuy dalal kii di Serigne Bara Segnane borom santu raar wi Segnane nu mu bindee ti nga ne waaw Segnane bo <laughs> da <laughs> def SE SE. G mm. e e. mm. mm. mooy Signane waaw. ko. Signane waaw mais wax naa leen ne Signane. pour si ñu ko xamul ñun sant wala boo xamante ni raar na raarul. mooy mais mooy sant boo xamante ni suñu maam mu ngi jóge woon dëkk bu ñuy wax seede seebe ci Fuuta. ñaan mooy saña ñaan. loolu mooy waaw saña ñaan mooy indi Signane. suñuy maam yëpp boromi village lañ. ñoom ñëpp ci ñaan yàlla lañ leen xamee. loolu moo tax suñu maam traversé foofu ñëw jolof bàyyeekoo fa ñëw saalum dugg ndukkumaan génn dem wàllaadex dugg Gàmbi bi dem Ziguinchor génn ba Burkina foofu yëpp dem naa fa fekk naa fa ay siñaaneen ñoom ñëpp képp koo ci gis rek boppam boo ko fëggee rek dara mu ngi ci waaw dañu nekkoon nit ñoo xamante ni nag boromi xam-xam yu am dignité lañ waaw macha waaw ay ñaankati yàlla lañ daal kon daal yaa ngi ci gis si rek ñaankatu yàlla lañ ñun ku si ñaanul rek war nañ la seetaan. Mhm. waaw kon yaa ngi sa domaine. bu baax jaajëf waay bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi numéro Serigne Bara Segnane la àdduna bi yëpp soxlaa am ñu bëri nag am nañ ko ba pare mokkal nañ ko mais nii ñëwee leen ko joxe sax daf leen neex bindal 77 617 18 33 77 617 18 33 wala nga def beneen 77 346 90 00 77 346 90 00. bu dee da nga nekk Gambie da ngay def 00 220 742 37 01 même boo nekkul Gambie te bëgg koo jot moom mu nekk Gambie loolu nga def 00 220 742 37 01 sëñ Baara Señaan moo ngi ci VDN ci cimetière euh, catholique yi kër seesu Macky Sall bi taxawal foofu rek woote ñu jël si la nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara taman na lépp mbuur dina fa nekk weer wu nekk bëgg naa nekk Gambie euh, fi ngay nekk ci mbuur nan la. ak sa numéro bi nga wax ko ci anglais Gambie nu mu demee. waaw mbuur ñu ngi nekk onkaat mhm. bu dee euh, mbuur ñu ngi nekk àllarba ak foofu la ñuy nekk ñu ngi nekk onkaat bu dee Gambie la ñu ngi nekk fi ñuy tuddee Bakoote mhm. wala Kooto ñaari barab yooyu yëpp suñu barab lañ fi ñu nekk numéro bi mu ngi nekk 742 37 01 742 37 01 kon numéro yaa ngi noonu ñu ngi leen ko bindal bi du fi jógee incha allah day dama ko ñëw rek koy jàpp bu baax baax ñu dugg ci biir euh, mbir yi sëñ Baara Sagnane. Mm-hmm. maa ngi nuyu rapport boobu ñuy wax Matador. kun liggéey. Mm-hmm. ba mun am liggéey. Mm-hmm. maanaam euh, fii Sénégal te côté boobu nag dama ci sant bépp sëriñ buy liggéey nit te doo am résultat. damaa bëgg sëriñ si naan dañuy naxaate côté boobu nag laa bëggoon ñu ci am ndam. maanaam ku leen di liggéeyloo nit nag ñu lekk sa xaalis ba pare bañ am ndam. boobu moom dama ciy kontaan léegi nag ñu ñëw ci kuy liggéey nit. nun mën a def nit ki ban kaaraange la mën a am ba ku ko liggéey du jàpp ak kun liggéey ba pare ba mu sàggan ba ban jàpp ko ba pare pour mu muccaat nag léegi ku bëgg a mucc ci kun liggéey ak euh, bañ ñu liggéey la ak kun liggéey liggéey bi wàcc mu deñ ba set xeetu takk xala kort yooyu yëpp dama koo boole ci biir ak yàqal nit ki ba nga xam parce que am naa koo xam ne mi ngi may wax ne ma à chaque fois bu yow problème lay am bu naaj wi tàngee ba heure xëy weesu nag mu amaat jàmm yooyu yëpp Afrique la nekk toog di tubaab tubaab la ba sànku nag te kii ma nga wax ne directeur société la di dund lu mel noonu Afrique la nekk kon sëñ Bara Segnane kaaraange bu wóor ba mel ne balu tengs ku lu dóor mu dellu ci moom am sécurité bu saf-sap mu nga xam ne que belende ba mu saf-sap loo mën a lool ba nit kii mucc ci ñu koy liggéey waaw baax na comme ni nga waxee ñu yaa ngi nuyu Matador man maa ngi nuyu Baxaw Baxaw Baxaw wax dëgg yàlla suñu suñu dëkkandoo la baxaw <laughs> baxaw waaw ma ngi koy nuyu ok rapport. baxaw ñooy bokk di julli ci jumaa bi. <laughs> man dañuy daje fee ci Maysa ci Pape Ndiaye. waaw moom it ñu ngi koy foofu Ndiaye di reere ñu ngi koy na miinante wuñ noonu. mais hmm. ñooy daje si jumaa ji. Hmm. fekk àjjuma ñu daje fii Sacré Cœur. ndeysaan waaw ni nga ko waxee rek. Euh, kaaraange moom lu am solo la. Hmm. ndax euh, xam nag li tax ma tudd Matador da ne dañ koo liggéey ba mënul ba mënul am liggéey. Ah. moo tax ma dugalaale ko. <laughs> Euh, waaw xam nga liggéeyante moom. dafa bëri fi mu toll nii ci dëkk bi mais am na kaaraange yu saf sap waaw yu saf sap euh, dafa am kaaraange boo xam ne moom lañuy la ñuy tuddee madda faunul kabir mm-hmm. madda faunul kabir ku dem ci secret mag ñi sax mu ngi fi noonu la ko mag ñu tuddee maanaam amul euh, tey seex ni ma la koy misaalalee mm-hmm. mu ngi mel ni ñu ne dëkk bii nii lu mat mille wëllu yu ñu ngi fi ku ñu téyel kurus bu bët setee doo xëy maanaam ñooñu ñëpp fanaan si yow bu bët setee da ngay xëy yëlëb sa saak dem xëy waaw kooku mooy madda faunul kabir mag ñu bëri mag ñu bëri xataa am na sax ay xalifa yoo xamante ni dañ koy jëfandikoo pour wàllu kaaraange mhm. du du ñii rek soxla kaaraange du du directeur société yi de mhm. sëriñ si yëpp ah, waaw yow Afrique la nekk waaw kay sëriñ si yëpp mhm. mat dafa wunul kabiir même man mii di wax ak yow sax damay xëy di ko di ko bien ba mu baax ndax loolu pour wàllu kaaraange la ndax doomu aadama li koy soxla dafa bëri pour jéem ko yàqal sayaatiin yi ñu ngi ñëw nit ñi ñu ngi ñëw ak yeneen yi nga xamante nii sax xamula leen ñu ngi ñëw kon képp koo xamante ni daal bëgg nga kaaraange bu safa saf waxuma la kaaraange bu saf saf mais boo xamante ni ku laal waaw yëg ne laal na laalaate laal na lu saf ok moom laa la wax hmm. si lay doon boo koy sànni mu del si waat yow ah boobu la mooy kooku mooy kaaraange bi bëgg kaaraange bu saf sap dëgër këcc mel ne ku blende hmm. sëñ baa dul sang du bari noo bariwul Ah. ñun wax naa leen ne samay mbir moom. Ah. da ngay ñëw rek ñi ñi ñi ñi ñi ñi mm. jàllaleel nga jàll. bariwul mais sangaay la boo xamante ni pour kaaraange la. Ah. li ci gën a yàgg daal mooy deux semaines lay doon. deux kaaraange boo xamante ni saa boo koy sangoo dama naan la bàyyil ba weer bi di yokku. Mm. xam nga kenn ku nekk weer weer bi di yokk Ah, luy weer bi di yokk comme tey buñ ne tey le premier ci weeru olof ah, weer wi di yokk ngay sangu bu weer wi kaamil rek nga kaamil nga kaamil waaw kooku mooy man dafoonul kabir mm-hmm. kooku secret la boo xamante ni boo koy jëfandikoo noon nga koy jëfandikoo mm-hmm. dangay ngay bàyyi ba weer bi di yokk ngay yokk Mm-hmm. même xanaa xamoo ne même sangar sax weer daf ciy joué mag ñi mm. dañ la daan tere bu weer bi wàññeeku bul sangu ah? bu weer bi di wàññeeku bul sangu boo sangu mbir yi day res yooyu yëpp mbiru baatin la mais daal am nañ kaaraange yu saf sap yu saf sàpp yoo xamante ni mm. képp ku ko laal moom dina képp ku la laal dana wóor ne laal na laalaake mm-hmm. Mm-hmm. kon daal ku même ku ko bëgg moom njabootam yëpp mën na bilende incha allah incha allah boo ñëwee dañ lay bilende lépp jërëjëf euh, Serigne Bara Segnane dégg ngeen li mu wax ci wàllum kaaraange mm. kon defe naa euh, loolu leer na nga ne ku bëgg tamit ko tàggat nit ci benn mbir. ci ay mm-hmm. mbir. Mm-hmm. yooyu tamit da ci aay. comme tàggat kuy jàng. Mm-hmm. nga kii ko muy jéeg rek di am bac di am BFM di am euh, concours bu mu di doon douanier bi di am. di yëg rek nga xam na que lu mu dem rek day am ndam. waaw xam nga ci seex tàggat ci olof rek. mooy wulli wulli. xam nga léeg-léeg sa muus mi ci kër gi mun nga koo yara yara yar bu ku ñëw boo ne ko demal jox ko loxo mu jox ko loxo xam nga loolu mun na am loolu yëpp ci xeeti tàggat la maanaam tàggat nit ki maanaam dafa bëgg a tàggatu ci wàllu wërsëg wala ki da nga a tàggat tàggat sa njaboot mm-hmm. dégg nga nga xam ne nii dafa bëgg a ubbeeku ci wàllu wërsëg wala nga bëgg ko tàggat ci li nga xamante ni moom la nekk tàggat daal en manière générale mooy loolu mm-hmm. mooy lépp nga tàggat nit ki ba mu nekk ci ci mm-hmm. ni itam yaa ngi jëflanteeg moom nga bëgg li ngay jëflanteeg moom mu nekk lu facile maanaam lu yomb du am benn jafe-jafe bu ci am kooku itam am na yoo xam ne da nga koy def nekk ak borom këram am na ay tàggat yoo xamante ni da nga koy def waaw borom këram mm, ki tàggat soxnaam ki tàggat soxnaam lépp képp koo xamante ni da bëgg a tàggat rek waaw yooyu am képp koo xamante ni da nga bëgg a tasxiir rek mooy li ñuy tuddee tàggat bon dañ ciy yëngatu te am nañ ci yu yu yu doy waar nag yu doy waar ay jërëjëf euh, sëñ Bara sëñ am tamit nga ne da nga yor loo xam ne que nit ki bu tukkee mm. day mel ne aar sa kër aar sa njaboot mhm. saay-saay du fa dugg mhm. ku nar lu bon du fa dugg mhm. ku bëgg xeet boobu daal xeet boobu tam boobu arrangé tukkikat yi loolu nga ne nan la demee waaw xam nga kër dañ koy sécuriser comme ni ngay amee sa compte wala sa nangam nga sécuriser ko maanaam kër dañ koy wattu mag ñi def loolu moom lañ doon tuddee mu njëkk loolu mooy mankaane mankaane xam nga bu njëkkoon ñun ñu dëkk ci àll bi boo amoon toolu mango wala nga am toolu xaal da fa daan def benn mankaane boo xam ne ku fa dugg ku dugg ci tool bi jaan dàqe ko jaan dàqe ko xam nga léegi ba léegi am na maanaam boo ñëwee ci tool bi pour sàcc booy dugg jaan moo lay dàqe moo lay topp tànk dawoo ba génn jaan bi du wàññeeku mm. loolu mooy mankaane loolu tamit dafay am ci njaboot tey boo amee ci njaboot tey jii mu nekk xale bu ndaw wala mu nekk ku jigéen na ko war a mankaane mooy nga def ci moom loo xamante ni kenn du mën a yegg ci moom mm-hmm. loolu benn la ki nga xamante ni dafa dem bàyyi fi soxnaam war naa mën a def loolu mm. ki nga xamante ni dafa dem bàyyi fi këram war naa mën a def loolu loolu mag ñi moom lañ doon tuddee mankaane mm. tey am na loo xamante ni tey boo ko bindee nga boole ko ak xobi kaane mag ñi dañ ko daan bind ci alxuraan la mm. nga boole ko ak xobi kaani nga jox ko sa doom mu sangoo ko amul kenn kuy mën a yegg ci moom waaw léegi <laughs> sëy rek ah waaw mais sëy non déggoo li ma la wax de kenn mënta yegg ci moom ci fo ci fo lañ la wax ci fo ok ba kenn mënta yegg ak moom ci fo mais bu demee ba dëgg des nag loolu dafay dëñ mais daal kenn du mën a fo ak moom loolu hmm. moom boo demee secret la boo xamante mu ngi ci alxuraan xobi kaane lay àndal rek nga bindal ko jox ko sa doom mu sangoo ko kooku boo ko defee moom mankaane nga ko ah. amul kenn kuy mën a yegg ci moom hmm. waaw kon sëñ Bara Segnane dégg képp koo xam ne dañ bëgg tegtal ku koy seetaan sans nga di seeti sëriñ hmm. bi fi yaa ngi jëriñu bu baax nga ci am ay njëriñ xam nga xam nga loolu nan la ko olof waxee mm-hmm. xam nga dañuy wax ne caba bësi mm-hmm. bësi mooy jàpp bësi jàpp bësi fu mu tegee bu jógee ruusit des fa mm-hmm. mooy tey su ma tegoon jàpp bësi fii ci saalum saalum bi tey su ma ko yëkkatee dina am ay pepp yu fa des kon loolu la te olof day wax ne na ah ku la jàmb loole moo la macciloo moo waaw ndax doo toog di déglu rek ah. pare naa sëñ bi de moom boppam la doon waxal déedéet mm-hmm. mais dina am xam-xam yoo xamante ni yow di nga ci mën a jëriñu à mm-hmm. distance fi nga nekk mm-hmm. euh, kontaan nañ bu baax a baax ci jëriñ bi nga xam ne ko yaa ngi koy jëriñ askan ci wàllum xam-xam sëñ Bara Segnane dina gis ne léegi sëriñ si ak rab sëriñ si yab nan rab wala rab yam nan askan wi ba sëriñ si di àtte rab sonal nit ñi ma bëggoon xam boo ma bëggoon wax ci rab euh, melokaanu rab mooy lan ak tamit sëriñ si nga xam ne que bu ni faj de xaw a nuroog combat bu ni faj de xaw a nuroog théâtre ba askan wi ci boppam di dénoncer di ñaxtu naan lii ëpp na comprendre mhm. te tey par exemple man bu ma waxee lenn li dinañ ma saaga ba may bëgg dee yow boo waxee len li dinañ saaga ba nga bëgg a dee mhm. ta tamit dana am droit mhm. saytu luy xew suñu biir réew mhm. dana am droit dundal xam-xam dana am droit euh, segg lu baax te tamit soxla soxlawul ñun euh, sëriñ buy laale asamaan beeg suuf soxaluñu man li ñu bëgg daal ku am jàngoro mu wér ku am soxla mu faju comprendre mais léegi dafay dem ba kenn mënatul wax dëgg parce que boo waxee ñu ne da nga gaarwaale te nit nag booy wax te wax bi amul comme mu li nga wax te jëmul ci kenn jëru wax ñun li ñuy wax dañuy bëgg toujours lu leer nañ mu bëggoon wàllum rab loolu ciy wax ci rab yi nga xam ne que dafay àgg ci mhm. euh, nit ki ci boppam li nga naan nitu ndox mhm. ak nit yi nga xam na que dañ leen di mocc ñu daanu mhm. ak nit yi xeet boobu laa bëgg nga ñëwal ñu ci daal en manière générale waaw xam tamit bu dee gis nga sëriñ bu ciy def nuy noonu nga ne d'accord ni lii moom am na fu sëriñ si d'accord naa fii mais domaine bi d'accord ma ci xeet boobu waaw xam nga li may wax ak yow rek mooy euh, mbiru rab mm. dafa nekk loo xam ne ni dama ko maîtriser mm. waxuma ko pour ndamu pour leneen mm. ndax li tax sànq bi ñuy commencé rek maa ngi lay tëril ay tëy ay ay bëyiti barhut barhut buñ ko waxee képp koo xamante ni sa gëstu dafa ëpp ci dafa yenu ci côté barhut daanaka wàllu rab da nga ciy xam lu bëri ma gis yoo xamante ni mu ngi am daanaka amul benn njëriñ nit ñi dañu xàmmewut nitu ndox ak nit koo xam ne rab moo ko téye te ci biir sëriñ si itam am na ci sëriñ yoo xamante ni seen rab yi rabu fokkat lañ yor. Ah, rabu fokkat. waaw hmm. day am rabu fokkat. kanaa xamoo ne maanaam sëriñ lum la fekkee woon bu ñëwee loolu day gën a yokk rek moo xaalis ñoo yem. Ah. gis nga xaalis bu la fekkoon tey nga nekk ab caay-caay. Hmm. boo amee xaalis da ngay gën a saay saay. waaw da nga koy gën a. Hmm. bu la fekkoon nga baax te da ngay gën a baax moo sëriñ ñoo yem dafa am ñoo xam ne rab yi fokkat lañ am. te dama lay wax ne mag ñi bu lay jàngal ci wàllu rab dañ naan la nit ki dafa am loo xam ne moom lañuy ñuy tuddee nitu ndox kooku bu daanoo moom la ñuy tuddee dafa daanu nox nox moom la ñuy tuddee nox nox nox nox nox nox bokkul ak ki rabtee bu daanoo dafa am nu muy daanoo dañu ne ñetti daanu moo am dafa am daanu boo xamante ni moom la ñuy tuddee kiris mooy daanu bi nga xamante ni mooy daanu mooy daanu bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee nox nox mooy daanu bi nga xam ne moom la ñuy tuddee yësi boobu gàllaaj moo koy def mm. nit mën na takk gàllaaj daanu mm. mooy yësi yësi bu njëkk bu ñu ko daan liggéey dañ daan jënd li tax ñu naan yësi yaasin la hmm. olof mooy dagg lu bëri yaasin da nga daan bind am na mbër yooyu bu daanoo sax noonu daan bind yaasin hmm. ba ci fowum laa yëpp si róona hmm. bu ko defee ñu utal la ay banti kaaneeg ay fetti jiit def la ko defal la ko loolu mooy pax boo paree da ngay daanu yësi am doole kooku daanu boobu moom la ñuy tuddee daanu yësi dégg nga du yàgg beneen bi ci topp moom la ñuy tuddee daanu nox nox mooy ñi ngay gis nag ne dañ wax ne dañuy capter ay rab ak dañuy jàpp ay rab moom la ñuy moom la ñuy def loolu mooy nitu ndox ah. am nga nitu ndox kom nan la seex fi mu toll ni nitu ndox bu nekk bu taxawoon nii ma taxaw su ma yuuxoo wala ma wax ñetti baat rek mu daanu da ngay ñoo xam ne dañuy daanu te tudduñ dara tudduñu dara tudduñu dara ñu yàqu dama lay laaj yow galanu sabar kum mën a daane waaw maanaam ñi tëgg dara nga daanu mm. wala nit wax ñaari baat wala mu tudd turam nga daanu mm. loolu nitu ndox la daanu boobu muy daanu nag bi muy tëdd noonu di daanu loolu la ñuy tuddee nox nox loolu mooy daanu nox nox dégg nga bokk ak daanu bi nga xamante ni daanu rab la ba nga xamante ni rab bi moo nekk ci nit ki ba daane ko mm. bokkuñ sax ni ñuy comporté bokkuñ ni ñuy defee mm. mais euh, fi mu toll nii jamono ji ci boppam dafa xaw dafa xaw a doy waar mais am ngeen responsabilité parce que tey mm. mm-hmm. mënuñu wax ne sëriñ si nii leen mel mm-hmm. am benn identité bu leen di fu leen identifier mm-hmm. ne ay daal faj dafa laaj sutura faj dafa laaj lii am nun leen dëkkale noo xam ne parce que tamit am na ci loo xam ne que il faut ñu wax ko te dee ñun lu rafet lañ bëgg faj bu dagan faj bu sell faj bu ànd ak jàmm ak salaam faj bu ànd ak sutura ku ko mën a def mu mën a nekk quoi parce que domaine faj ak ñaan du du fowukaay lu sérieux la non yàgg naa la wax fii ne la mhm. baatin képp ko wax dégg mu koy foye mhm. dil xool mu jëm rek kooku moom ñun amul si sàllo baatin moom kenn du ko fooye baatin mbirum yàlla la mhm. mbirum yàlla la comme alxuraan inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafidun alxuraan ji yàlla nee na maa ko wàccee maa koy garanti tey nga taxaw na yaw mii kat ci alxuraan ngay faj wala yow mii kat ci sunna yenente bi ngay faj te mosoo wax loo xamante ni lu dëppoog alxuraan la mosoo def loo xamante ni lu dëppoog sunna yenente bi la ngay foxe li nga xamante ni mooy lasra di foxe baatin naan yaa ngi faj man de damay diglal képp koo xamante ni dem nga fa doo wér ndax li tax doo wér du rab nitu ndox la moom ci boppam nitu ndox la mm-hmm. moom ci boppam nitu ndox la nitu ndox nag mooy li ma la wax léegi mag ñi dañ koy daaj kenn du ko jat wala nga mocc ko wala nga def ko leneen mm-hmm. nitu ndox xam nga nan la da ngay bàyyi ba mu tëdd guddi nga natt ñaata mètre la nga jël ko boole ko ak kawaram nga suul nitu ndox bu dee ku jigéen la tant que amagul ñaari doom yow bu fekkee na nga am soxna mu nekk nitu ndox mm. tant amagul ñaari doom mag ñi dañ na amagoo jabar ndax bët bu set mën na la indil surprise mm. loolu mooy nitu ndox nitu ndox dañ koy daaj daanu boobu muy daanu nag tey lu mu mënta doon même bu doon sabar la wala mu doon ay jàng wala lu mu mënta doon boo waxee maanaam tey jii bu gisee ku daanu rek moom it day daanu nitu ndox moom noonu lay fonctionner boo bëggee xam kan mooy nitu ndox mooy loolu maanaam lépp loo xamante ni nit def na ko rek daf koy def mm-hmm. nit def na ko daf koy def moo daan indi sax mag ñi danga daan gis boo amaan jabar boo ko bu fekkee ne daajoo ko jabar jooju mooy ñi saar ñi daan xaru jékki-jékki dugg ci teen te kenn du leen def lu leen naqari dañuy jékki-jékki rek dem dugg ci teen bi wala ñu jékki-jékki am doom ba pare dem bandana doom ji daw dem loolu yëpp saaru nitu ndox la nitu ndox nag nekkut koo xam ne da ngay nekk ci noppam di wala def leneen da koy daaj mag ñi dañ ko daan daaj mm. képp koo xamante ni am nga doom wala nga am soxna mu nekk nitu ndox ngir yàlla bu ko bàyyi muy dem foofu ndax dafay indi yenn dafay indil boppam yeneen i problème yoo xamante ni yem fa fekkoon la fay fenkaat ndax tey jii bu demee mun na fa fekk ay sayaatin sa ñu julli ko roofaat mu am ñaari feebar nag nekk nitu ndox ba pare amaat ay sayaatin yu ñëw ànd ak moom kon loolu tim nañ ko moytandiku bu baax a baax te léegi saytaane nag moom ci yu demee nii ci lay profitoo ndax gis nga rab du euh, rab du def risque risque mooy génnal boppam def ni déedéet rab day profitoo ci occasion fi xew-xew yi di am wala fi yenn daje yi di am foofu lay ñëw profitoo fa kon nañuy moytandiku trop rab dafa nekk loo xamante ni lu danger danger danger la dañ ko war a dañ ko war a moytandiku mm-hmm. Mm-hmm. yow rab moom yab nga ko wala yaboo ko. waaw déggoo li ma la wax. man dama ne la rab mooy suma domaine. mooy sa domaine waaw man mooy suma domaine. gis nga dama lay wax. man kon jàpp nga ne rab amoo góor gi ma doon jàngal lasara dama lay wax ñun ñoo ay dof ñoo daan fanaan. Hmm. da nga daan gis koo xam ne day dof fukki at kii dof juróomi at ñu indi leen góor gi Saïd Gueye maa ngi koy nuyu bu baax. mu nekk fajkat boo xamante ni fajkat boo xamante ni gisuma ku mel ni moom ci àdduna. Hmm. ci wàllu ci wàllu fajin. ñun kooku moo ñuy jàngal lasaraar moo ñuy jàngal li nga xamante ni mooy wàllu faj mais kantaa nag ñoom ni ñuy fajee nii ñun moom duñu ko duñu fajee noonu rab mhm. waaw ñun moom am nañ façon yu ñuy fajee rab mhm. waaw yow fajoo façon bi ngay fajee rab nan la waaw façon bi may fajee rab nag kooku sama mbirum baatin la sa mbiru bopp waaw sama mbirum bopp la mais daal loo fi nekk di teg en ma teg kenn fitna mhm. du ma teg kenn fitna nit ki ñëw pour jéem def nga di ko téye mu nekk foofu nekk ci coono nekk ci yoo xamante ni kenn xamul non ñun duñu fajee noonu jërëjëf euh, sëñ Bara Segnane kaddu yi moo ngi leer yéen a ngi seetaan euh, Tektal ñu dalal kii di Serigne Bara Segnane sëñ Bara Segnane xëccoo place. Hmm. loo ci man hmm. kuy xëccoo place pour jot ci. Hmm. surtout place yoo xam ne que day doon ay mille personnes. ba pare ñu war ci jël cent personnes. xeet yu mel noonu. li ma ci man bari na. li nga xamante ni li ñuy tuddee naso loolu mooy xëccoo. maanaam loo xamante ni dañ koy xëccoo nga bëgg koo jël teg ko ci loxo ki nga xamante ni kooku moo ko bëgg. loolu am nañ ci ay tegtal am nañ ci ay yoon loolu moom bëri na ay ndam yoo xamante ni yàlla may nañ ñu ko ci daal. li nga xamante ni moom la ñuy tuddee wàllu xëccoo. dafa am xëccoo yoo xam ne xëccoo place la. tey boo ñëwee na ma man kat place bii. moom ngay xëccoo moom lay xëccoo ak nit. dafa am liggéey bu ñu lay jox da koy laxas ci yaxab bukki. yaxu bukki foo ko jëlee yax yaxu bukki boo demee Tilène fii rek ñu jaay la ko. c'est que problème foofu tamit. problème la ci sëriñ si waaw yaxu mm. bukki boo ñëwee Tilène xamoo lu yaxu bukki. waaw defal moom bu xamee xamoo ko defal ndànk ma wax la rek. Ah. saa bu ma yónnee nit. su ma ah. la yónnee su ma demee dama naan la jëndal tànk bi tànk bukki xàmme naa ko. Mm. bu ma naan la jandal yax bi ne yax bi ànd ak tànk bi rek laa lay xam nga nit mun na la indil yax bu nekk moo tax ba li ngay wax noonu lu am solo la hmm. ndax nit ku nekk ci li ngay liggéey ñun ci nekk li ngay liggéey moo tax ñun bëri na tey garab yoo xamante ni tey buñ koy uuti ñun ñooy dem utali ko suñu bopp hmm. comme garab yi nga xamante ay ndax mën nga dem tey jii na garab bi laa bëgg nit ki jaay la na la garab baa ngi nii loo ci mun a xam loo ci mun waaw mais nag loolu day fekk nga xàmmee xam nga ñun ñi nga xamante ni ci àll bi lañ yaroo hmm. tey man xas boo ma mën a indil bu ma xoolee dinaa la wax na la lii xasu nangam la ok boo indee tànk bi boo indee li nga indi bu ñëwee ànd ak tànk dinaa la wax ne lii tànkam nangam la hmm. loolu la rek bu dee boppam ñàngoor la mën a la lii bopp ñàngoor la bu dee bopp la mën a la lii bopp kuusuur la bu dee lii bopp xonq la mën a la lii bopp xonq la hmm. waaw kooku moom kon daal xëccoo place daal moom ku ñëw am ndam la xëccoo place moom ku si ñëw moom am ci ndam hmm. incha allah kon daal boo indee yaxu bukki bi da nga ko koy defal na waaw bu dee bu dee tey maanaam da bëgg ubbi benn place fi nga bëgg ubbi place bi tey ji am keneen koo xamante ni dafa ñëw bëgg ko loolu laa la wax ah, ah. nga teel a am kii nga ah, yàqu kii kon da ci mm, am waaw non dafa am yoo xamante dañuy wax ne nit ki da ngay sonn ci sa soxla ah, da lay jaral waaw ñun mag ñi noonu lañ lay jàngalee mm. boo ñëwee bu dee donte na ngeeraan gi ci gannaaw kër gi la nekk dañ naan la demal daggi ngeeraan nga ñëw pourtant mm. mën nañu yónni xale bi mu dem de léegi xëccoo place ba léegi dafay àgg ci daba ci xëccoo réew mm-hmm. xëccoo réew waaw mm-hmm. ku bëgg a mm-hmm. ak ku bëgg a folli ak ku bañ a jël ndaare xet googu loo ci mën waaw day dugg ci wàllu li nga xamante ni mooy wàllu ñaan yàlla rek xam nga leader yëpp ñi ngi rawantee ci sëriñ rek. waaw ba pare nag ñëw di jéem a dingal sëriñ. te gën leader yëpp nekk bàyyi leen foofu ma ne leader yëpp. ñi ngi rawantee ci sëriñ. te képp koo gis mu taxaw amul koo gis mu dingat sëriñ rek mu ngi koy def ci suuf. loolu nag war la waaw loolu moom war la. tey jii am na ñoo xamante ni tey jii ma lay wax depuis ñu commencé campagne bi ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi leen tëjul ay xalwa am na ñoo xam ne ñu ngi leen di defal ay ñaan am na ñoo xam ne avant ñiy dem ñëw nañ jël ñaan waaw am na ñoo xam ne nii avant ñiy dem ñëw nañ jël ñaan mais yow eh, mhm. kii ñoom ku ci bëgg a falu mën nga ko daal mën nga ko fal waaw xam nga nag euh, dañuy wax ne lépp lu ñuy tuddee fal mhm. ci loxol yàlla la nekk doomu aadama xam nga lan la man pexe moo am ak dogal mhm. pexe mooy ci bëgg falu dogal bi mooy lan yàlla moo koy dogal mais dogal bi lan moo koy mooy mooy ñaan yàlla kon man li ma gëm boog mooy nit ki bu bëggee dara jaar ci yoon yi mën na ko am mm. mais nag il faut nga dem tim ñu diagnostiquer la ndax bu fekkee dafa am loo bëgg in faut ñu xoolal la ndax yow fi nga jëm mën nga fa yegg wala de mm. tey mu ngi mel li nga yor sa oto rek nar a départ dem Kaolack il faut nga diagnostiquer oto bi mm. ndax oto bi mën na yegg Kaolack wala war na passé mbir ci laan oh, oh, il faut loolu nga xam ko loolu nag lan moo koy wane du nekk loo xam ne dañuy ñëw wax la ko publiquement loolu ki nga tëjoon nga koy wax na ko naa ne yoon yi ak yoon yi boo ko defee ñaan yi ak ñaan yi boo ko defee sarax yi mën na la noonu la mag ñi daan tegee nit ci yoon waaye nekkul loo xam ne da ngay ñëw rek ñu ne la mën nañ la ñaanal nga fal wala def nangam mais nag am na ay code yoo xamante ni boo ko remplir yàlla mën na la dimbale hmm. waaw mais jàmm rek nga gis ci hmm? Sénégal jàmm rek laa gis hmm, te loolu tim la ñuy ñaan yàlla jàmm rek laa gis te jàmm rek la ñuy ñaan yàlla bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa tamit ba di ki wax ci saal bi mu noppi Segnane borom santu ñàng wi dina nekk Gambie weer wu nekk mi ngi nekk ci Sacré-Cœur ci beneen bi ci cimetière Saint-Lazare kër siège Macky Sall bi ah foofu la nekk 77 617 18 33 77 617 18 33 wala def beneen bi 77 346 90 00 77 346 90 00 bu dee Gambie 00 220 742 37 01 00 220 742 37 01 bu dee Mbour oncat day nekk Gambie weeru nekk sa numéro wax ko ci Gambie ci anglais. 742 37 01. yaa ngi fàtte Gambie 742 37 ñu ngi Koto. Koto waaw boo ñëwee kooto rek ñu ngi foofu. nga fekk ko fi dis soxla lu mu ci man mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na leen sëñ Baara Señaan. Mhm. da ne fay coow. Mhm. yemoo ci kenn ci réew wa coow loo xam ne que dañ koo coow ba nit ki gêné wu nga xam ne xalaat day xalaat tuxu génn Sénégal man nga koo def ba nit ñi di wax laneen ku ko bëgg tudd sax nit ñi jóg amal la waaw mm-hmm. ah, am na ñoo xam ne que nag waxuma nag def toj toj pare bëgg a fay coow moytu leen toj toj mais ku natt da jàpp xeet googu yàgg ci amee preuve waaw fay coow moom ah. li ñuy wax rek mooy li ma doon wax wa samim wa bakkim suma ahmim xadu wonaa waxusu yaa sal jalaali bi xaqi samat mm-hmm. loolu bayit yooyu yoo xamante ni ci barhud la mm-hmm. barhud nag bu ñu koy wax tout le temps mooy bayit yi ñuy wax ay jinne ñoo ko wëyoon mm-hmm. mooy wa sammim wa bëkkim su ma amim xaddu wanaa wax rusu yaa sal jalaali bi xaqi samat mm-hmm. tey wax joo ko def ku ko jéem a tudd di nga luu luu mooy mooy doo mun a wax wala nga tëx doo mën a dégg wala maanaam xam yu mooy gumba moo tax ma ne la am na yoo xamante ni tey nit dafa daan daf daan maanaam daaneel seko seko xam nga seko mooy seko gerte nit ñëpp bay nit ñëpp bay nga jël gerte gi yóbbu <laughs> ñëpp topp la nga ah. bëgg fay wax ji boo ko defaan kenn du wax ah. moo tax benn waaye dafa dafa ñëw ci dafa ñëw ci man dama yow sëñ bi waaw ah. yan yàlla dafa wax ci alxuraan ne mhm. wa saariqu wa saariqatu faqtu aydihima maanaam sàcckat bu góor ak bu jigéen bu ñu leen jotee nañ dagg seen loxo mm-hmm. yéen lu tax na ngeen naan faxsilu aydihima maanaam yéen nit day ñëw nga ne ko boo raxasoo lii kenn du la kenn du waxati wax ji mm-hmm. ma ne ko déedéet lépp loo gis dafa am norme maanaam waxeewuñ noonu xam nga tout le temps yëf yi dafa laaj déggin boo déggee ñu ne fay wax rek ñu ne ah kon de sëñ Baara ku def nga gis nit ku def benn luuxur rek ah, ñëw taxaw sa kanam naan la man sëñ bi yow rek laa ci yaakaar dem defi yow def sa luuxur lekk ko yow ak sa njaboot ba pare ñëw taxaw na yow laa ci yaakaar ah, mbir mi du loolu mooy dafa am baatin li ko tax a jóg ah. mooy nit ki bu nekkee si njàqari situation te pour wax leen lenn moom ah da àggale nee na fay coow. daf ci am lu extraordinaire loo xam ne que. dana ma man yor naa sa yóbbante. mais waxagu ma lan la ma wax mu ne ma yor naa sa yóbbante daal mais la. publiquement lan ma wax man nag maa ngi toog nii. waaw àggale li nga doon waaw dañ ne euh, dama ne. yëf dafa laaj déggin. maanaam fay wax tey nekkul ne nit ki day dem lekk xaalisu nit ñëw nga defal ko fay wax déedéet nit ki day nekk ci ay problème wala loo xamante ni tey moo ko moom nit ñi ñëw bëgg koo yëkkati coow bëgg ko jël hmm. par exemple bi ma ci joxe mooy tey da yor ay terrain hmm. tey ñu bëgg ci ñëw teg ci loxo hmm. léegi nag noonu ñan ngay def ak ñoom il faut nga teg leen loo xamante ni loolu dootuñu ko tuddati teg leen lu dis léegi nag loolu ah, mooy sama yow sa yóbbante bi ma la ci wax dafa am benn waay yàlla dafa def ñu xamante depuis 2005 2006 te nit ñi boolee man ak moom mooy dañu ànd euh, maanaam dama génn fii jëm Banjul bi ma déparé ba féeri Foundiougne mhm. ma costé noonu ak sama oto ñu toog ay cinq minutes moom it mooy ci coste ma fay yéeg jéggi ñu jéggi toppalante ma dem ba Kaarang mhm. fi ma costé ci douane yi foofu moom it mu ñëwaat mhm. ñu continuer baara bi ñu demee ba yegg terminal bi ma costé mu costé ñi àndaat ci féeri bi jéggi bi ñu jéggee munuma sëñ bi yow dinañ waxtaan ma ne ko lan moo xew munuma dama bëgg ñu waxtaan mu am lu ma wax munuma am na benn mbër diw sàngam mu jaar ci tur wi. bu doonutoon nag émission ma wax ko déedéet ah, ah, émission la rek mbër kon waaw bu doonutoon nag émission ma tudd ko mu ne ma mbër moomu mm-hmm. gis nga ku xees ki nekk ci ginnaaw mm-hmm. nga xam ne saa buy bëree mooy nekk ci ginnaaw ma ne ko ah, mu ne ko moo ma doon ñaanal ma ne ko lu xew mu ne ma dafa dee mm-hmm. ma ne ko mu ne ma léegi nag ma am problème mu ne ma Sénégal fu ne dugg naa fa du ma ne dugg naa fu ne waaye bëri na fu ma dem léegi nag affaire bi tëlee du sotti samay terrain yuñ nar a teg ma ne ko ah, mu ne waaw ma ne ko léegi foo jëm mu ne ma ci jalang laa jëm mu wax ma benn maire benn maire boo xamante ni mu ngi Serekunda dégg nga benn maire boo xamante ni mu ngi Serekunda boo demee fi ñu tuddee London Koona boo laajtee maire bi dinañ la ko wan boo ne leen waaw ah? boo demee boo laajtee boo laajtee maire bi def jalang ah. dinañ la ko wan nga ne maire bi yow boo ko gisoon rek daw mhm. waaw boo ko gisoon daw loxo yi rek lu mu néew néew mën na ay un mètre quelque loxo yi dafa gudd te ngand hmm? léegi nag mu ne ma waaw mu ne ma fa la jëm mu ne dañ ko ko tegtal mu nar fa dem ma ne ko mu ne naa ma ne ko nañ waxtaan bul dem foofu bu dee rek fay wax la rek maanaam buñ ko waxte ma ne ko naa ma ne ko ñëwal keroog man maa ko dalal sama appartement billaay foofu lañ fanaan man ak moom ba bët set ma defal ko li ma ko defal mu dem booba laa ko gëj a gis ñi toog man ak yow ñu def benn émission mooy émission bii passé fekk mu jógee Espagne la wax ne la la nekk léegi mu ñibbisi bi mu ñibbisee ba des cinq jours muy seetaan euh, Touba TV xaw ma waaw Touba TV muy seetaan tegtal muy seetaan tegtal ok hmm. bi muy seetaan tegtal mu gis ko bi mu ko gisee xool xool xool xool xool ba mu yàgg mu ne kii kii kii kanaa moom de après mu jël numéro téléphone bi mu woo ma dafa woote ay yoon yoon jotul saa bu wootee xale yi ne ko dafa jàpp ak nangam na mu jékki rek mu dawal otoom ba fii mu ñëw di laajte di laajte ba gis ma bi mu ñëwee toog na ma xàmmee nga ma ma ne ko yow mu ne naa ma ne ko déedéet mu nettalil ma histoire bi ni mu jógee mun ne ma nag man seex lay gërëm mu yóbbante ma mu ne naa la jox vingt mille francs vingt mille francs yi moom la ma jox nii mu ne ma nag boo ko koy jox na ko jox publiquement ma di ko gis ma xamal ko ma xamal ko nag ne ko vingt mille francs yaa ngi nii ñaari junne waaw saa lii de mooy yóbbante bu leer nañ ma ne ko lii mooy yóbbante bi mu ne léegi naa la ko jox xaalis bi moom du ma ko lekk du koy joxe ci daara ca parce que duma ma jik bii waaw mu ne naa la ko jox joxe ji tax nag mu tax nee na dafa kontaan te moom dafa war a delluwaat Ah. léegi nag bu ma waatee. jël na sama sama numéro whatsapp. léegi bu ma ah. waatee man dinaa ko wax mu woo la. waaye nag lekkal borom xol bu baax la. borom xol bu baax xol borom xol bu baax la. xam nga fi waaw léegi nag <laughs> moom xam nga nag lii la lii la ñuy wax nag ni wërsëg moom fu nekk lay ñëwee. wërsëg fu nekk lay ñëwee tey imaginel kooku la ma séqoon ak moom tey mu ñëw mu ne man seex mi ma dalal mm-hmm. toog ak man waxtaan mu ne moom dafa kontaan ci loolu mais nag lim la jox man jox na ma lu ëpp loolu waaw waaw <laughs> non gis nga vingt mille francs vingt mille francs yu rëy la ci waaw yu dama ko denc sax archivé ko fenn quoi mm-hmm. parce que ci biir luy firndeel ne li ñu def lu foo lu caaxaan di jariñ doomu aadama yi xoolal ñaata at presque dix ans yoo mm-hmm. xam ne que nit ki jàpp na ne mooy loolu sant yàlla daal mm. kon yàlla na ko gën a barkeel bu baax a baax a baax waaw comme maa koy wax ñu doon wax foofu rek mm-hmm. mooy moom dafa amoon ay terrain mm-hmm. amoon ñu ci bëggoon a teg loxo mm-hmm. ñu defal ko fay wax boobu mooy fay wax bii nga xamante ni moom lay wax mooy wa sammim wa bëkkim aduwu naa wax sum yaa sal jalaali bi xaqi samat mag ñi dañ ko daan liggéey képp koo ko defal wax jooy bañ ñi wax ko kenn du ko wax kenn du ko wax waaw mais nag li nekk ci biir nag moom ay code la ay code la mm. <laughs> jërëjëf euh, ay code la kon yéen bu baax a baax mm. sëñ Baara nga ne ko bëgg xam sa place. Mhm. nu waaw comme dañuy wax ne seex. Euh, boo ñëwee ci pàkk. nga bëgg a xam pàkk bi ndax yow yaay borom wala keneen moo ko moom. keneen ko moom ndax pàkk yow ma fa nekk bul defee ne yaa ko moom rab mën na faa dëkk. Mhm. te pàkk bu fa rab dëkkee. ku ko tabax bu fa jógee ci lay gëj a amee sanc bu baax moo tax nga gis maçon boo xam ne daf naan la man ba ma jógee ci sanc a am nga gis carreleur boo xam ne daf naan la man bi ma jógee ci sanc sàngam ci laa gëj a am li keneen keneen keneen même chose mm. ndax tabax li koy antami dafay bëri mm. léegi nag mag ñi dañ la daan jox benn téere mm-hmm. téere bi boo ñëwee da nga koy suul ci place bi xam nga lu tax boo ko suulee ci place bu fekkee rabang fa xam nga rab dafa bañ kumpa bokkul ak doomu aadama seex man nga gis dara sax yow doo ci bàyyi xel mais rab melut noonu mm-hmm. rab moo golo ñooyam xam nga golo. waaw buy fanaan ci garab. Mhm. saan lay ñëw def visite. Euh, su su fa pax de pax mu fa nekk. mu sakk ko. Mhm. roof fa ay xob. golo noonu lay def du fanaan mukk fu mu visitut. Mhm. moog jinne nag ñoo yam jinne bu ñëwee ci terrain bi bu ñëwee fekk fa loo xam ne moom defu ko fa. da ngay gis ne dafay commencé di xool. léegi nag téere bi boo ko fa defee bu fekkee jinne mu nga fa bu ñëwee daf koy toxal. nan nga ko tegee woon doo ko ko fekkee mm. bu boobaa nag mag ñi dañ naan la fii du sa dëkkuwaay loolu yëpp boo demee mu ngi ci alxuraan ku jënd teere pare nag lu muy def day xàcc ku jënd ku jënd teere pare nag gis def ci léegi doo xàcc de mais nag boo xàccul pexe am na xam nga loolu tax ñu naan réparé waaw réparé ah, réparé xam nga li nga teg foofu jinne ji ñëw ñemewu ko ba di ko laalantu nii mm. loolu nga fay def rek moo tax ñu xam ñu ne loolu mooy xam sa place nga xam ne fii kat jinneem fi mm. nga xam noo koy paree pour dëkk fi mm-hmm. waaw bu fekkee ne loolu nekk fa nga xam ne nga fay pare pour dëkk fa loolu la ñu ñaaw na koo xam ne ko lu mu tudd mu yàqu borom bët bu ñaaw koo xam ne lu mu xool mu yàqu borom gis-gis ñaaw lu mu yéene xeetu ku ci bëgg mu loolu mooy borom làmmiñ bu ñuul ak borom bët mm-hmm. ñooñu mm-hmm. xool am na ñoo xamante ni lu ñu xool mu yàqu mm-hmm. am na ñoo xamante ni lu ñu tudd mu yàqu loolu nag dafa am ay pexe yoo xamante ni maanaam ay ñaan yoo xamante ni dañ la koy <coughs> ay sàngat yoo xamante surtout bu nekkee nit koo xam ne da ngay génn ci mbooloo waaw wala ngay wax ñi di la dégg mm-hmm. nekkul ne da ngay jékki-jékki rek génn il faut mu am yoo xamante ni da nga koy def mm-hmm. loolu itam dama la ciy digal ay vee yoo xamante ni ah, da nga koy saf saf ndax gars yi nga xamante ni am na ñoo xamante ni lu ñu wax rek daf lay topp daf lay topp képp koo xamante ni da nga maanaam làmmiñ bu ñuul mm-hmm. làmmiñ boo xam ne dafa am gaaf wala làmmiñ boo xam ne dafa am tooke ndax tooke dafa bëri mais ci làmmiñ mais nag ci africain yi la gën a bëri waaw làmmiñ mais nit bu làmmiñam mën na mën na catu nit mu jàpp wala comme nit boo xam ne que yéeneem day rafet bu mm. comme xam nga tey Sénégal dafa kii diw dafa rafet ñu ne càttu la mm-hmm. sa oto bi dafa ñaaw mën a ko kon lu mu war a wax xamante loolu ci biir nit ñi la nekk ah. tey boo doon xool ci nit maanaam pour cent lañ ci bariwul maanaam borom làmmiñ ñu ñëw mm. mais nag ñooñu lu ñu xool nag moom mu wadda moom ah. waaw mais boobu bi leen ne moom lu ñu xool mu wadda bariwul nag mm. bariwul mais lu ñu xool mu wadda kooku dafay laaj belende ci yaram bi belende bu saf-saf <laughs> jërëjëf euh, sëñ Bara Segnane kii bi mi ngi neex bu baax a baax a baax nga nekk mm-hmm. léegi nag loo man ci secret alxuraan. Mm-hmm. boo xam ne que nit ki da koy def am amam di yokk xam-xamam di yokk kenn du mm-hmm. waaw damay ja damay xam nga ne ñun léeg-léeg suñu waxtaan. ci ñi muy gën a am solo mooy ñi jàng ndax boo jàngul léeg-léeg nga topp di ñu sonal. dafa am benn saar boo xam ne dafa nekk ci alxuraan. boo demee da nga fa fekk 15 am. am am mooy saar bi gën a bëri am ci alxuraan. mooy am am. xam nga alxuraan am na. am ci téere suuf yi wala. am na am am na waaw waaw. Mm. am na am yaquluna saa'irun. Mm. am yaquluna saa'irun foofu la aaya ba commencé. Mm. buñ demee nañ ko xool ci côté saariyaat yeeg yooyu. xaala fa maa xabbukum am na saa'irun boo demee ci biir saar bi da nga fekk mu ngi am fukki am ak juróom 15 am. am am am am yaquluna saa'irun. mu nga jeexee si subhaanallaahi ammaa yusrikuuna boo ko xoolee 15 am la. Ah. kooku nag bu fekkee da nga dem ci barab. Ah. nga ubbi miim yi. nga dugal sa tur. Mm-hmm. ok bu ko defee nga dugal turu dëkk ba nga xamante ni moom nga bëgg. am na ay code nag yu nekk ci biir. surtout xabar yi wala. waaw mu ngi ci am ci xaar ko moo rek saar yaa ci xaaf yooyu ku di nga ko fa fekk kooku benn la beneen bi si topp kooku pour wàllu am am la mm. képp koo xam ne da bëgg am am xam nga mag ñi buñ demaan ci dëkk mm. daan def la lasaraar boobu lii amutoon moo tax bu nit taxawee ci télé naan dem di wax xam-xam wala dem di def nangam ñaari mbir rek moo am mm. mag ñi buñ demaan ci xam-xam buñ demaan ci dëkk xam nga buñ bëggoon a annoncé seen ñëw ci dëkk bi nan lañ daan def. dañ daan bind loolu dem sotti ko ca teen ba. ku fa naan da nga leen yóbbul weexal. Hmm? waaw affaire la nekk. waaw ku fa naan. Hmm. da nga leen yóbbul weexal. man de leen naa ko xam moom. Hmm. gis nga nii may defee émission nii yàlla bii ma tiim xam naa ne ñi ciy jëriñu. kenn mun laa xam nu mu toll. ci lu ma xam li ma xamul nag kon bul xam. mais itam bari ñu ma xool mere ma lool ndax lan invité naa ku leen tegi coono. maa ngi ciy jégalu du sama yéene. kii njariñe mooy sama yéene kii lore du sama yéene ku xamoon fan la da nga fay jubal ma ne seex waaw lu baax waaw dañ koy feeñal mhm. lu bon la ñuy nëbb billaay gis nga ah. exemple yi ma la ciy jox mhm. lu tax nit ki bu dee yàlla daar daar ne nañ ko suul mhm. su ma amaatu wu fa akbaru nee na su ma ko rayee na ngeen daar daar lu tax doom bi nga xamante ni dafa judd yàlla tuddee ko Busra. Mm. nga gis nit ki di ëmb 9 mois loolu mbégte la. mbégte la ñëpp di xam ne ah diw ëmb na ñëpp kontaan ci ëmb bi. ñëpp mm. kontaan ci ëmb ba mu am 9 mois. te bu nit ki dee waxoon nañ ko teg 9 mois ñu ñu daal di ko suul. Ah, ah, ah. kon loolu mooy lu baax dañ koy feeñal. ñun dañ la ciy encouragé te dañ la ciy jàppale. jaara kon yokk ñaar waaw beneen bu saf saf ah. ñun dégg li ma la. waaw yow jàkkaarloo gi ngay jàkkaarloo sëriñ si rek loolu dafa nekk lu ndaw. mais mais ak sama xarit ba. Tayraan non akama bëri ñoom neex nag Cheikh Abdou Diop Mod Sarr euh, ñoom Mandaw ñoom Mohamed Ba Tayran Cheikh Abdou sax Tayran may tatarun lu ñëw rek ne ñu ngi jégalu Tayran tey nag Tayran ma ne waaw kañ la maa du tey temps nañ voyage man ak moom ma wax la voyage bu yéeme ah barke rasule voyage man ak moom ah? dama déparé fii dem Koungheul mm-hmm. bi ma demee Koungheul maa ngi jëm benn village boo xam ne ay dix kilomètres la mm-hmm. ma ñëw ba yegg ci benn ci ci raay bi taxaw di laaj. ku doon ah, dawal ah waaw day day ok ma gis ko muy daw di ñëw. di daw di daw di daw bi mu ñëwee fekk man ak soxna si ñu ànd. mu ñëw nar a xëcc porte bi fi soxna si toogee. waaw uh-huh. ma lokkee bunt bi. mu commencé naan kéŋ kéŋ kéŋ kéŋ moom soxna si xamul de. Uh-huh. ma ubbil ko. ma ne ko na nga def man xàmmee naa ko. Uh-huh. ma ne ko na nga mu ne man rek. ma ne ko mu ne ma dama lay wan ni dëkk ba. mu ne directement dama lay wan ni dëkk ba. kii na waa ci fu mu xamee fan la ñuy dem mu ne dama lay wan ni dëkk ba. ah comme melokaan nit la yor boobu. melokaanu nit daw moom gis na ko. soxna si gis na ko wax naa ko ko. Ah. soxna kii gis na ko ak suma taale bi ma àndaloon. Eh, soxna rek moom naa ko gis mu ànd ak moom ci oto bi. Hmm. mu ne ñuy yóbbu. waaw ma ne ko léegi fi ñu jëm mu ne moom fi ñu jëm foofu la dëkk. te dëkk boobu ñu doon dem. Eh? ñaari kër la. Hmm? ñaari kër dëkku fa de mu ne moom fa la dëkk dañuy dem. ñu wax waaw tey lu ko neex war na xam nga xam nga jinne. danga ma indi ci domaine bu ma neex xam nga jinne man tey bi moo neex dama la bëgg a wax tey dama la indi ay histoire yu jinne mm-hmm. euh, xam nga léegi mu ne nañu ànd dem waaw ñu dugg ci oto bi mu toog mais comme comme xam naa ne rab la te xam nga jigéen dafa gaaw a ci tiit mm-hmm. waxuma ko soxna ci dara ñu départ di dem départ di dem départ di dem di dem di dem di dem ba mu yàgg mm-hmm. xam nga leen ci dëkk bi la jëm ah. ñu ñëw ñu jëm ñaari yoon ñu jëw yegg si ñaari yoon mm-hmm. ma ne ko ban yoon la ci mu ne ma yoon bi eh? fekk yoon bi ma wax beneen yoon bi la dalaa ji waaw ma ne ko yow yoon baa ngi nii ñu dem mm-hmm. bi ñu demee comme que mu ne ci dëkk bi la dëkk bi ñu yeggee wàcc commencé nuyu mu génn dugg ci biir mbooloo mi génnaat ma gis ko mu génn ci àll bi di dem ah. ma wax soxna si nag bi ñëwee ma wax soxna si nag ma ne ko est-ce que xam nga ki ñu àndaloon mu ne ma déedéet ma wax ko ne ko kooku mooy Tayra mu tiit mu ne lu tax waxoo woon loolu mu tiit tiit boo xamante ni léegi beneen loolu mbiru rab la noonu lay demee. Mm. ñun dañu amoon benn rab boo xamante dafa. mais mais da nga xool nga may boole ak moom nag. waaw la boole ak moom bul yàkkamti seex. bul yàkkamti mbiram gaawul. ok léegi dafa am benn bés. maanaam dañu am benn benn rab. Mm. maanaam benn tudd boo xam ne moom la ñuy tuddee Penda Malem. ñun fi ñu dëkk ci Saalum. Mm. am na Penda Malem ñu nekk ci ruutu Koungheul bi. Penda Malem rab la. xam nga moom nan la daan def bu nawet jotee. Penda Malem waaw Penda Malem la tudd. rab bu jigéen la bu fa nekkoon Penda Malem Mm. bu nawet jotaan wala sa fas réer daf lay niru fas bi. waaw. comme yow sa fas réer. mu ñëw niru fas bi dem yeew. da ngay yeew di jox muy lekk di naan. billaahi bu toogee ñetti fan ñeenti fan da ngay ñëw fekk buur bi ni nga ko rasee woon ci tànk bi nii. waaw mu recci ko dem. moom noonu la doon def man benn bés dama ko mos a waat. waaw penn ma leen boobu. mer boobu rab boobu dama ko mos a waat. mu daaneel ba ci xetat ba suma tànk yi. Ah. dafa lakkoon ba ñuul. loolu lay xamal ne maanaam rab. bon ni mu lay jëriñee tamit dina amee ak caay-caay. Mm. moom lu baax rek la. waaw non lu baax la c'est que rab sax du caay-caay sax mais moom foo xam foofu day ëpp. Ah, ah, seen kaf day ëpp te rab. Ah. Euh, temps bi muy dépassé ci yow. Mm. maanaam temps bi muy dépassé ci yow. tey temps boobu day nekk lu yàgg comme par exemple tey rab mën na ñëw am ak yow benn def ci yow benn maanaam deux minutes deux minutes yooyu yow mën na nekk comme. ay fan ñett waaye ay at yooyu. dafa mais suñ présentation fu ñu seet si Tektal boutique la ñu wala. kenn ma lay ma lay wax. Ah. dafa am benn bés dafa toog di keeñaaru. keeñaaru mooy bu naaj bi tàngee ngay génn nii di jaarul sa yaram. jaarul fi mu toog noonu benn groupe romb ko dem dellu wàññeekuwaat mu ne xoolal doomu aadama moo gaaw moo moo moo gàtt fan. Hmm. ñu ne ku lu xew mu ne groupe bi romboon fi seet lañ doon yóbbu seet boobu muuraat nañ ko taman maa ngi ci sama benn toogaay. waaw maanaam moom fi mu toog di keeñaaru benn une heure de temps maanaam ah. trente loolu trente loolooy tax léeg-léeg bu nekkee moo tax nañ bàyyi fooy ñi taxaw naan ay damay génnee rab damay def nangam. Mm-hmm. dafa am yoo xam ne caaxaan la. Mm-hmm. caaxaan la rab li koy génnee ci nit ki du loolu. yomb la waaw li koy génnee ci nit ki nitu ndox nag man nga def loola neex. Mm-hmm. mais rab puissance bi mu am ak doole bi mu am. baatin dëgg ak alxuraan moo ko mën a génne. waaye ay woy wayaa yi ay woy yi ceet ak. <laughs> yu bëri xam la yomb la génnee dara. ok mais tey nag tey dina ñëw. moom xam nga ay mbiram moom day jékki-jékki mën na ñëw léegi pël la. waaw parce que man vraiment damay defal xéwal nag may séntu nii. ba ah mais. waaw ah. Tayraan nag jox la sarax nag respecté ah, ne ma Tayraan ma defal li ma hmm. ah, ko dina ñëw. waaw jàppal may tëddu nag. ni Amath moom ah moom ko booleeg Tayraan ah Ahmed gisante naa Taïran. waaw gisante naa Taïran moom Taïran embauché na ko moom. Taïran embauché na ko. waaw Taïran embauché na ko. jaajëf Ahmed bu gàtt. waaw Ahmed moom léegi Taïran embauché na ko. kii pour ngeen ko mën ku baax la Ahmed bu gàtt bii. Mm-hmm. sama xarit la rakkam la ñoom ñaar bokk ndey ak baay. waaw Taïran embauché na ko. man Taïran kat du ma lijjanti poste côté. ay ah dina la lijjanti toogal rek. xam nga moom. waaw ah. nit ku nekk man nit ku nekk su may ànd ak yow. waaw ah. comme yow su may ànd ak yow. waaw ah. ni may respecté sa décision. waaw ak man ni muy respecté sama décision. Mm. noonu laa koy respecté rek jeex na kon man damay nuyu Tayraan nuyu May Tatarou. May May Tatarou dañ may woo naan ma dama dégg May Tatarou ni ma ne leen. waaw ku ci yàq turam yàqam. Ah, ah, ah. bu la fàddee yàqam man sama yoon ne. nee naa leen May Tatarou bu ngeen koy bindee. waaw miim la nañ ma dégg. miim waaw miim. waaw. taatànk. taatànk. yaa. yaa. taatànk. taatànk raa. taatank ra waaw nu nara. moom mooy yaayu Tayra. moom mooy yaa moom mooy baayu Tayra. baayu Tayra yaayu Tayra mu léegi may tatagul moom nag ñu lay wax. waaw wëlliyu la. Mm. yàlla la comme ñu amee ay kilifa diin. waaw noonu la mel mm. que am na ku ñu tuddee koñ ba Cheikh Abdou Diop bu jël nañ ko jox ko Tayraan. jox bi dafa yaakaaroon Tayraan la sax. Tayraan ban la. Tayraan bi sa Tayraan bi ñu koy woowee. Ah, non non tur moo ko neex. Ah, mu ah, yaakaaroon ab joueur la nag. ñu ne ko xaar beeg ba mu xawee doxul kii na instant bi may tatarul moo tax bu ñëwee rek nee na may tatarul mhm. Tayran day bañ nag ma ne ko déedéet yow lañ tuddee Tayran parce que yaay sama xarit may tatarul noonu may tatarul waaw kon daal Tayran ñi ngi lay siyaar nga yokk ñaan ñu doon milliardaire di jariñu di jariñu mhm. bu baax a baax te boo ñu seet si nag guddi moom ñu ah, moom mbiram noon la de ah. mbiram noonu la de bu la séenee moom bu bëggee ñëw moom kenn mënta fexe. non dina laaj Ahmed Ahmed fi mu jaar. waaw Ahmed moom Ahmed Sagnane borom santu kii ñu koy ziar bu wér a wér a wér sëñ Bara Sagnane mi tax tegtal la. kattan. waaw barke rasul sëñ Bara Sagnane mi tax am nañ gan de. am ngeen gan gi ki nu tudd. waaw. gan gi. waaw mooy mi tax tegtal. mi tax tegtal la tudd léegi. gis ngeen ko. bu bees tàq bu tudd mitan tegtal. lii mooy mitan tegtal. mitan tegtal moom ah lu mu di ci kii nu muy defee. moom la jaamu yàlla yi doon kii. waaw. mooy mitan tegtal. nu ko nit kii jëlee. ah kii nag. mitan tegtal tur bu bees waaw. dama ciy wax lu bëri te. tout ah. boo ci boo ci bu ma ciy wax. waaw damay defarwaat am na ñoo xam ne nee loolu moo leen ci neex. loolu leen ci neex waaw defarwaat bi. ngóora. mitan tegtal. waaw am na ñoo xamante dañ ne loolu moo leen ci neex. billaay. Eh, damay wax ne sut jamono ji ñu toll. Mm-hmm. li ñuy tuddee kàttan. waaw ma waxoon rek lay waxaat. waaw maa ci toog fi mu toll nii. yaa ci toog fere laa ci maa ci toog. waaw te ku weddi. waaw nga ñëw ñu ñamal la mu ngi nii. ñam waaw ñam rek. Mm-hmm. te bii benn la ci. benn la ci benn la ci boo xamante ni mooy bi génn bii benn la. Ah, am na ay yeneen yeneen yoo xamante ni ñu ngi topp. ci loolu la mm-hmm. mooy li nga xamante mooy li jëm ci wàllu kàttan. Mm-hmm. képp koo xamante ni dafa jëm képp koo xamante ni ci wàllu sëy la. nga bëgg loo xamante ni maanaam bëgg nga jot ki nga xamante ni moom nga nekkal. Mm-hmm. boo ñëwee ñu jàppale la ci. beneen bi si topp. Mm-hmm. mooy li ñu doon wax jaamu yàlla yu bëri li ñu ko laaj mooy wàllu yokk bi. yokk awra waaw parce que moom dafa nite. loo xam ne que ko waxee nit ñi dañu jàpp ne yii waa kii moom est-ce que mi ngi xelam. waaw comprendre yokk awra. Mm-hmm. sëñ Bara Segnane nag moom nee na ngi ànd ak sagoom moo ko wax <laughs> te borom xam-xam la nee na yokk awra am na am na ñooñu nag boo ko waxee rek ñu ne ah, dama lay wax tout le temps dama na hmm. la wax ñun dañuy jàng alxuraan. Hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ne nangam ñu ne ko waxoo dëgg moo tax. ma ah. waxoon la ci alxuraan hmm. wa islam yaxtadu fa sa yaquluuna haada ifkun qadimun. léegi lan moo tax yéen borom xam yi ñi leen di borom xam-xam mën na ban la ku amul xam-xam mën a weddi sa morom borom xam-xam mën lay weddi. waaw mais noonu lay demee rek. Ah. inkaar moom fi lañ ko fekk. te foo fekk euh, foo fekk ku nekk kuy inkaar mun na nekk borom xam-xam incar moom ñaar rek moo koy waral. ah kuy jël deuxième lay doon. moo koy waral soit nga tardé wala nga iñaan. tardé wala iñaan. waaw ñun nag dafa am lu ñuy jàngal loolu la ñuy bàyyi ñas jàngal. Mm-hmm. daf nañu na ngeen xóotal seen njàng. Mm-hmm. bu leen di gaaw a witti. maanaam man nit balaa ma witti. kii def ne nangam lay def. waaw yaa kayti doo dem ba ci moom. dama lay laaj rek. xanaa xaw man dama li nga wax nii dama ci d'accord dama d'accord ne man. di gëm lu amul njëriñ. maanaam gaaw gëm moo gën gaaw a wetti. comme la dama lay wax képp koo xam ne da daan contact benn yoon. waaw boo ñëwee di nga contact trois fois. trois fois waaw. ah bis mu ko gëjee jël am contact benn problème. ci mhm. ku daan contact benn yoon. boo ko jëlee di nga contact trois fois. trois fois waaw. mi temps teg kooku maa ko beneen bi ci topp ñu dem ci li nga xamante ni moom la ñuy tuddee xam nga nit ñi dañuy ñëw. yokk aw naan yokk. Mhm. am na ñoo xam ne dañuy defe ne pour moom mën nga ko yokk ba mu kii yeeg. waaw yëfu tey dañ dañ dañ dañ man li may wax ci xam-xam lay wax dama ne mhm. nit ku nekk boo ñëwee man sa nee naa leen ki nga xamante dafa nekk fii loolu sax du ko arrangé ndax ñun bu ñu lay yokkal mm. dañ naan la boo demee ni nga toog 30 41 jours boo xam ne doo ah, ah. am na ñoo xamante ni dañ koy door dem ba ci biir ñu ne la sëñ bi yàpp ah, ki ko bëgg boo nekkee ci biti mën nga ñëw ñu defal la ko xamante ni sori nga ak wala ki nga xam ne amagoo mm. mën nga ñëw ñu defal mm. léegi ñu jox la garab yi nga di ko naan 41 jours 41 jours boo xam ne doo def rapport bu dee kii la nag amul benn problème bu la neexee kii la Mm. tey ñaar yi nga ci wala yor nga baneen yu bëri la yii ay yu bëree bëri la mm. am na boo xamante ni bii moom lañ doon tuddee bii mooy supp bi supp bi bii mooy supp bi moom lañ fi njëkk wax mm. am na boo xamante ni mooy bi nga xamante dañ koy bind tamit maa koy bindal sama bopp nit ki li may man li may jëfandikoo moom lay jox jaam yàlla yi jëfandikoo am na boo xam ne yaa koy bindal sa bopp dama ne la tey su ma la ko joxoon yow mii nga commencé koo bind booy commencé kanam gi commencé xum. mi ngi ko yaa ngi ko doon wax. waaw loolu kay loolu kay jeex na. Hmm. dafa am loo xamante ne amul boo ñëwee fii bu fekkee man nga bind man ma jox la lettre yi nga bind ko. jeex na nga ko. am bëri na ay façon am na boo xamante ni da nga koy bind ba pare nga def ko ci njuur. ci njuur njuur. njuural semmiñ. njuural semmiñ hmm. boo ko defee fii pàcc bi waroon dugg foofu nga koy sotti. boo ko sottee mu wadd ci nga boole ko nga jël pàcc bi teg ci kaw nga teg ko ci ànd tàngal ko ba mu tàng nit ki naan ko taxaw ay sanditam yëpp day jóg. day jóg ay sanditam yëpp day jóg. kon mi daan tegtal a ngoog. léegi ci topp dama wax li ma leen wax leer na. waaw bëggatuma sax di dem ci côté yokk boobu ndax li ma ci wax bëri na fi mu toll. leer na daal waaw kum doyul baax fa man saa fal yoomin o man saa fal yekk fa. Mm. kum neex nga gëm kum neexul nga wéy. mais ku ñëw daal moom dinga xam. nga ne tamit da nga yor ndomb gu doy waar. waaw ndomb gi moo nekk ni sa dañu am benn waaw lii ndomb bi bii nag pour man la. pour yow la waaw bii moom sama c'est c'est mm. moi. bii ndomb bi ndomb douze mbakkan la. douze mbakkan waaw mm-hmm. non li ci njëriñ bakkan kii li mu ëmb ci njëriñ bëri na. comme la nag nag. dañuy wax ne mag ñi bu ñu lay jàngal boo xoolee bëtu musalas maanaam bët yi nga xam ne moom la ñuy defaree musalas xaatim juróom-ñeent la. Hmm. kii bi si njëkk maanaam lépp loo xamante ni cat la. waaw maanaam lépp loo xam ne cat mooy làmmiñ. Hmm. du mën ci yow dara du mën ci yow dara. kii bu la neexoon nga takk ko futtee ko def yaramu neen. bu la neexoon nga takk ko futtee ko def yaramu neen. kenn du mën amul dara luy mën ci yow dara làmmiñ mënul ci yow dara bët hmm. mënul ci yow dara. kon ci ñi nga xamante ni mooy waa extérieur yi ñu ngi seetaan. ñu baax na ci ñoom beneen bi ci to mhm. képp koo xam ne yaa ngi koy takk doo yaakaar mu tas. doo yaakaar mu tas. Ah, yaakaar mu tas ak ndeysaan. képp koo xamante ni da koy takk lépp loo xam ne moom la ñu tuddee ay xabaar yi. mooy ay saytaani. waaw rab du mën ci yow dara. comme bi ndomb moo tax ma ne la bii pour man la bii douze mbakkan la. douze mbakkan day jàpp li nga xamante ni mooy buruj yi. mooy mhm. fukki biddiw yi ak ñaar. Mhm. ci lay dox fukki biddiw yi ak ñaar boo ko dawalee trente fois de trente euh, moo lay jox trois cent soixante Mm-hmm. mooy lépp loo xam ne mooy sajjitu doomu aadama mm-hmm. maanaam kii ñu ko liggéey ci fulkul azir mm-hmm. moom lu ko yàq xam nga li ñu tuddee fulkul azir ndomb bi kenn du ko takk di dugg ci armée ah ko takk di def rapport di sëy beneen bi si topp kenn du ko takk di topp ci gën loolu nag àll bala am ah, ay gën waaw yooyu àll bala am kii ndomb la boo xamante ni képp koo xamante ni am nga ko ah macha allah kaaraange bu mat sëkk sëkk sëkk. te teg ci da nga bind téere ñaari téere ci lasara. waaw dañu liggéey ñaari téere. waaw ñaari téere yi. moo nekk nii. sëñ Baara Seyane waaw bii moom lañ liggéey moom ci ñu ngi ko tuddee kasfu daxaayiq. Mm. kasfu daxaayiq mooy wuññi ay sew sew. wuññi ay sew maanaam yi nga xamante ni nit ñi xamuñ ko ci xam-xam. waaw ñi leeralal ko nit ñi. kon daal maanaam sëriñ xam-xamam dëgg sax yi. ak ñi nga xamante ni dañuy jàpp defe ne rab la ñuy faj fekk nit ndox lañ yor. Mm. lépp mu ngi fii. Mm. boo xoolee ci biir téere bi dinañ la wax nit ku nekk maanaam nit ku nekk boo ko xoolalee nit ku nekk nan la biddiwam taxawee lépp boo xoolee ci biir téere bi yëpp indi nañ ko. bu ñu téere bi ñu liggéey képp koo xam ne bëgg na ko bu ñëwee fii ci daara bi mm. dina ko fi fekk dégg mm. beneen bi si topp liggéey nañ ci même hatta ah. li ñuy tuddee xaalib ak maxluq fi mu toll nii ah. mun nañ wax ñi nga xamante nii ñoo nekk ci terrain politique bi ah. kan mooy jël xaalib ak maxluq mu ngi fi ah na ko wax non du ko wax mais lépp mu ngi ci téere bi ah ku jël deuxième déglu ma beneen bi ci topp képp koo xam ne ñaar ñuy xëccoo mun nañ la wax na la kii mooy gañe wala kee mooy gañe mm. lépp mu ngi ci biir te lépp nekkul loo xamante ni lu sori la xam-xam la mm-hmm. xam-xam la ndax boo ne un ah. plus un égal la yo deux rek mm. doo ca teg trois de doo ca teg trois ok loolu mooy xam-xam yooyu moom lañ dëxañ fii mm-hmm. te dëxañ nañ ci li ñuy tuddee euh, maanaam xaar listixaar mm-hmm. listixaar ci ñi nga xam ne dañoo weddi na nit ki mënoo defal keneen listixaar listixaar dafa am boo xam ne nii mutlax la am na boo xam ne mu xayat na am na boo xam ne mu fasal mm-hmm. lépp mu ngi ci téere yi ñaari téere yi kon téere sëñ yi am na solo sëñ Bara Segnane jigéen bu bëgg jëkkër mën na ko am. ak ubbeeku ak xeet yooyu daal. waaw euh, jigéen lu doon nga def chiffre 41. jigéen bu bëggee jëkkër. waaw kooku mën nañu ko defal 41 jours. 41 mhm. jours moom dina gis jëkkër. Ah. léegi nag sans départ. Mhm. xam nga am na ñoo xamante ni li nga sangoo wala li nga jëfandikoo leer googu moo lay indil sa jëkkër. Mhm. moo tax ma ne la 41 jours képp ku ko jëfandikoo ndax téere boobu tilimut la ko mag ñu tuddee. tilimut tilimut mooy téere bi boo ko takkee. balaa ñaqam di saf si sa yaram borom kër gi jóg léegi kii nit ki mën a takk téere bi mhm. dem ci kii defar photo ak kii filmé jox ko avance nekk ko sama mariage yaa ma koy filmé yaa ma koy photo mhm. dem ci kii le séesi ak mhm. seen a musique fay ko ne ko mariage yaa may defar lii ba pare yëgle moo géwal bi koy tàggal yëpp mu ne leen comme par exemple natt 41 jours mhm. jàpp ci ne diggante bi moom boo accès rek mu defal ko loolu yëpp bu ko neexee mu def lépp bu ko neexee mu yëgle hatta ah. seen koñ sax bu neexee ah ci dugg mooy tilimu cat du ci dugg ci diggante amul loolu amul cat amul cat dégg ko kon ñi naan ma am naa 40 ans maa ngi nii mel naa ni ma war a mel ku ñëw wax ak man dem ak nangam façon yi mel noonu nañ seet seen bopp rek nañ seet seen bopp wala ñëw seet si ñu rek Mm-hmm. waaw sëñ Bara Seck dégg nga ko kon leer na nañ ubbeeku tamit du nga ne 41 jours waaw dañ ci am digal bu wér waaw ci ubbeeku waaw ci lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu wërsëg mm-hmm. boo ñëwee 41 jours la kooku am nañ ci wér léegi bay bu saf-sapp nag nit ñi di la tudd carrément mm-hmm. conteneur yi ñëw <laughs> ngay baagante dema ko ñëw mbir yi dox macha allah boobu loo ci mën am nañ bayre yu saf-sapp si ah. waaw am nañ bayre yoo xamante ni bayre yu saf-sapp la ndax li tax ma naan la bayre yu saf-sapp la bayre bi boo ko sangoo ba pare. maanaam fi nga koy sangoo. Mm-hmm. tey fi nga koy sangoo saafa tey bayre bi fi nga koy sangoo dafay génn. Mm-hmm. boo ñëwee dafa am ay kuraay xaw ma xam nga ko wala xamoo ko. Mm-hmm, muy loolu. ok kuraay doom la yoo xamante ni ci vitteen lay jógee. waaw ah, comme vitteen mooy kuraay. ok boo ñëwee dafa am sangat bu ñu lay jox boo xam ne day ànd ak doomi randa. maanaam randa lépp luy meññi ci garab. moo dàq meññi ndax garab la boo xam ne bokk na ci garab yi meññi deux fois ci at boo ñëwee ñu jox la ko. boo demee da nga koy def ci kaw ci kaw ci kaw gis nga booy sangu bu jàppee day sax. waaw bu jàpp am na ñoo xam ne seen biir dafa dëgg dañuy commencé sangu mu commencé sax tuuti <laughs> balaa ñu yeggal mu dee. Ah. ñooñu il faut ñu yeesalaat. Mm-hmm. ok mais ay bayru yu saf saf mu ngi. bayru bu saf saf la moom daal baax la ci léegi mm-hmm. ah, kat bu fay nag. Mm-hmm. mbër mu fay. commerçant bu daanu ku xewi loo ci man man nag yooyu nag ci laa aay. Ah, waaw kon yéen a ngi ñi nga xamante ni yàlla dafa def amuñu tur. man ñooñu laa bëgg di jëflante man ñooñu ci laa ay. yow daal ku tàkkagul daal nga bëgg a tàkk loolu loolu moo gën a gaaw maanaam euh, sëriñ dëgg balaa ñu ko xam ci domaine boobu lay doon maanaam ñi nga xamante ni dañu fay dañu rës. man nañ ma indil ñoom. dégg ko. waaw. Euh, artiste bu fay mbër mu fay footballkat bu fay commerçant bu daanu ku yegg teer ku jaaxle ku jommi sëñ Baara Señaan nee na mën na ci daal. Mm-hmm. non waxtu bi rek def nag looy tàggoo bu du tàggatoo bëggoon nañ dugg ci yu bëri a ah. yaakaar muy tas mm-hmm. Euh, ak lan bëgg nañ daal ci ay koo nekk bitim réew bëgg kayit koo xam ne que tamit sëy ba dafa yolam mu bëgg mu gaaw jàppandi diggante bu gaaw yooyu yëpp daal ku ci ñëw da nga ci def dara incha allah yow yow loo tële loo tële ah li ma tële nag bëri na boo doon ah, man lépp loo xamante ni dafa jàpp bopp waaw ay bëgg du ma ci yëngu ay nopp nopp yu métti bëñ buy métti glaucome yooyu moom xeet yooyu moom du ma ci laal dara lépp loo xamante ni estomac la hémorroïde ulcère coli yooyu ah. yëpp moom dañ ciy yëngatu jabet dañ ciy yëngatu dañ ciy yëngatu maanaam nga faj mu dañ ah, ci ay garab na ko génne yooyu sax bëgg naa est ce que mën nañ la ko ne kenn mënu koo faj ba mu wér kenn mënu ko ne ne wax ne mënu ko faj mu wax loolu waaw ah? boo demee ci alxuraan am na ay yoo xam ne rhumatisme kese la faj hmm. am nag aay yoo xamante ni diabète kese la ñuy faj lépp mu ngi ci alxuraan. moom bu ñëwoon fekkee ne jàng na alxuraan. jàng na alxuraan. waaw ne ko mu ñëw ma jox ko ko ci alxuraan moom mu dem xool ko. mu sax mu dem te ñëw mu dem mu xool ko. kon yow am nga ñoo faj ba ni ba ni wuyoo yi. dégg nga. comme nga faj ko ku ne am ansa diabète yi. non man am naa sama mère yoo xamante ni. ay ah. diabétique la ñu woon. Hmm. pare nañ ci de. waaw. léegi koy sant ko gërëm koy nii soxna yi njaboot gi Ahmed Seynaan ak yére bu rafet bi ku ko <laughs> ñëw macha allah waaw Ahmed moom dañ koy nuyu di ko ndokkeel Ahmed bu ci nomination bi mhm. ne ko Tayraan jàpp na ci bu baax la na ko Tayraan waxoon def na ko Tayraan la ko waxoon ah, ah man de maa ngi la ko waxoon moom def na ko moom kon ñu ngi ko ñu ngi koy moom it ñu ngi koy gërëm ci nomination bi bu baax waaw Tayraan ah, sama xarit nga de yàgg nañ de maa ngi Ahmed am temps yàggee ci yow waaw mu ngi ñëw rek. mu ngi ñëw rek xam nga luy xeeñ moom. bu yàggee rek ñu yekkal la ci. incha allah wóor ne yow affaire yi ñu ngi koy. Eh, toog damay bañ a laate. non ah, yow xam nga ne yow lekk bàyyi la. billahi billahi di sant. léegi euh, sant ñëpp. waaw ñu ngi sant ñëpp. Mm. di sant euh, suñu sa télé nga nekk tuddul ko la neex. suñu xarit bi Souleymane. Souleymane nan Souleymane Traoré. Souleymane Traoré. Eh, waaw moom moo seere li nga xamante ni moo jëm ci wàllu kër gi communication. communication parce que am nga page Facebook bu tudd nag. Mm. sëñ Baara Sénégal Baara waaw Barou. Barou waaw. boo demee foofu moom moo seere lépp barawut ngay bind rek Facebook wala sëñ Baara sëñ Baara ak Sañaan ngay sëñ Baara Sañaan moom ngay bind di ah, di nuyu nag sama ñawkat bi sa ñawkat bi i tamit aay la de Mass waaw Massamba Massamba nag Mass Coupeur Mass Coupeur waaw tur boobu daa mel ne ma koy dégg Mass Coupeur mu ngi nekk deux voies liberté 6 yii deux voies liberté 6 yi liberté 6 boo ñëwee ba ci jumaa Abba Sall bi jumaa moo jàkkaarloo ak moom kii mooy Manche Couture. numéro 9 77. 77. nga def 0. 0 33 33 33. 0 33 33 33 ba mu jeex. kii mooy Manche Couture nga mooy ñawal lion yi yëpp la. kii mooy ñawal ngay nii. sama yére bu ma sol moo ma koy ñawal moo may habillé. Hmm. kii mooy Manche Couture. non naa fi ñëw ñawal Manche nag moom. waaw dina jëflante ak Tayraat moom. Ah, ah dina jëflante Tayraat. <laughs> mais yow Tayraat damay commencé 6 xam nga ma damay commencé 6. mais da nga ne woon kenn laa ko booleel. Ah, waaw yow yaay doon ñaareel. mu ngi ñëw nga boole ko Ahmed. muy ah. moom. moom moom ko gis rek tànnal ko boppam. Ah. xam nga rek ki gis bëgg ko. xaw ma liñ bokk tax xaw moom xëy na loolu la waaw xëy na loolu moom daf ko gis rek soppal ko boppam. mais wax nga ko yóbbal tamit waxal ci moom dara. kontaan na ci moom dara kontaan na ci yow de wax dëgg yàlla. kon baax na mais xam nga bi njëkkee def émission man ak yow. d'accord wutoon ba yow bi ñu enregistré émission bi wax naa la ne la. waaw nee na waaw ma ne bégul mais ñu commencé waxtaan entre xarit xarit. Mm. ba mujj confirmer affaire bi. Mm. kon ñi ngi sant Massamba. Massamba di sant di sant samay soxna nag. Massamba daf may ñawal wax. waaw waaw mi ngi may dégg ah. sa xarit la nag. waaye sa waajur bi man ni muy laajee neex na ma ko. <laughs> Massamba maa ngi lay naa ñëw sol yu baax man nag ki may habillé temps yi Madina boutique la ñu koy wax Mor Gassama. Mm-hmm. nekk ca Front de Terre kër Sëñ Mbacke gis nga ku jógee bitim réew di ñëw bu la neexee jëratul nga jënd ay yére di ko indi nit ñi ñëwal ba fii loo bëgg nga jënd ko yóbbul ko la neex te day bëgg dàll yi moom la pantalon bi moom la chemise bi moom la ceinture bi moom la temps yi daal maa ngi saf sapp ndax Madina boutique Mor Gassama di nuyu ña fa nekk ñëpp mooy Moussa Gassama ak Cheikh Gassama euh, numéro Mor Gassama nag 77 575 10 82 77 575 10 82 Kër Sëñ Mbàkke Madina la boo jógee Notre Dame di Liban wala nga jëm fa rek côté boobu la nga ko fa di nga am baax a baax équipe technique bi ñu àndaloon Mohamed docteur Wade bu Casamance ak Derklé bu chef courant bu ñoom Rasoul waaw ak ndey xat yi yëpp ndey xat yi xaritu ak tamit euh, tuutu docteur Wade bu ndaw ak Laay ñoom ñëpp ca Rasoul Wade kon ñu ngi leen di nuyu ak bu gàtt nuyu na leen bu baax a baax <laughs> di jaajëfal tamit euh, Baye Massamba Diop bu ummi ak am Amsa bu di sëtu Massamba Diop ciment mi nekk ca Derklé di jaajëfal tamit Petit Sow maire Castor wala Mbour docteur Wade maire Casamance Baye Mass maire Derklé waaw Mamour Ndiaye maire Parcelles tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraa nga dakk xarmat nag kenn du ko tudd ay code la <laughs> xarmat numéro bu mujj ci biir émission bi numéro sëñ Bara Sagnane 77 617 18 33 77 617 18 33 ba nga def beneen bi 77 346 90 double zéro double zéro mooy zéro zéro yow mu déggul daaj 77 346 90 double zéro wala nga def beneen bu nekkee Gambie 00 220 742 37 01 sëñ Bara Segnane nekk ci Sacré Cœur ci VDN bi cimetière Saint-Lazare yu catholique yi séjour APR bi Kër Macky Sall nga taxaw foofu woote ñu jël si la nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla xam tëliwul dara la onkat euh, bi ci Kota. waaw 742 37 01. dégg nga 742 37 01. 01 nuyu naa Fatou Diop nekk fële ca États-Unis ak couple ba ca Texas ak tamit euh, waa Allemagne Nogoy Diop ba ca Salon ba ak Sayer Fall Espagne bëggee nañ ñëpp daal tout le monde ñi nga xam ne que dañuy bëggee Tektal bu baax a baax ak waa Gabon ñoom Marème ba ak euh, ñoom Ngor Ali bu baax a baax kontaan ci yéen Adama Ly waay.